da ngay dégg ñu naan jëndaguma am xar waaye su madam amee rek mu baax su madam amee mu baax madam ci njaboot gi la bokk dama koy waxee ni ko waxee rek madam defe naa mooy soxna sax lañ ci jublu bu ñuy ànd ak moom bu ñuy jënd bu ñuy jënd am xar ànd ak moom mu tànn ma ko gënal loolu it yàlla amagu ci place léeg-léeg am ci koo xam ne jafe-jafe yam cay am day jaare noonu génn këram dem ndax xar ma madam bi soxla jibam attanu ko te bu ko lebee dana ko topp lu yàgg mu di ko xalaat mën na koo tee nelaw loolu it yàlla amagu ci wàll na ci jullit yëpp yeew li ci dolliku it mooy léeg-léeg ñu jox ko ñoo xam ne it suñ ne nañ ko joxe it buñ ko denc li mu xar yu bari yi nañ ko jox ña ko soxla waaye léeg-léeg it ñu tënk ko di ko jox ñoo xam ne ñi kenn ku ci nekk mën na la caa indil ma ngi koy jox juróomi moroomam wala fukki moroomam ñooñu it leneen la tudd loo xam ne du yàlla leg leg it aw nit di wër di ko laaj te ñañ koy laaj duñ leen ñëmé baña jox loolu yit yalla nekku ci yalla amu ci wal su ko defé buñu ko dajalé bam dajé yalla xam nuñ koy def waaye danañ ko rombalé ko xamné mom ma nga tok doon ko xaar doon ko nik ba yak ba yag tas ab julit nak wota tas yaakaari moroomam julitam loolu yit lu mata bayyi xel la ñu bayyi xel ne yit suñu agge ba ci bis wër gi ñuy wër ay kër di nuyoo it lu saxaabatu rasul daan def la ridwanullahi taala alayhim ajmain ana lu ñu daan waxante yàlla na la yàlla nangul li nga jublu ci tabaski mi kenn kenn ko amin ak yow itam waaye nag léegi ana fu ñuy daje war a waxante baat yu baax yooyu yàlla yàlla na nu ci yàlla musal dañ naan ku añ na raxasoo si barab sàngam barab sàngam la fay xew ko ne xam na ko foofa it ab jullit war na ko bàyyi xel bu baax fàttaliku ne fu nit bëggul dee fekk ko fa bu mu fa dem fu nit bëggul dee fekk ko fa rek bu mu fa dem te nit dee mën naa fekk nit fu nekk jóge ci jaamu yàlla nag faatu gannaaw bi mu fekk ko fudut fa yàlla santaane loolu kooku suñu borom àtte na ko ba noppi wax na ne ku jëm ci lu baax faatu ci yoon wi lam yéene woon la ko yàlla di fay waaye ku jóge ci lu baax it ba def lañ ko ca santoon jóge waat fa jëmaat ci ay caaxaan it su faatoo ci yoon wi it caaxaan yam jëmoon ca la ko yàlla di àtt amul soxla ci lam jóge woon yàlla nañu yàlla musal ci loolu tabaski nag lu bari ay ngëneel la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku wutum tabaski nam ko war a wute defe ko nañ ko